indonesia bu yang begitu mbégte bi lii de su sañoon sax teew gi mu fi teew dina gën a yàgg loolu mbagg nee ni mu ko waxee bi mu ñëwee bustaan ci yow nee dina farataal saa su ne bu toogee ab diir nee moo xam Touba lu nekk nee na wala ca daara ja nee mu doxantu ba foofu nee ñëw toog siyaase la waxtaan ak yow nee di am mbégte ànd yow ànd ak bii mu ànd ak jóge Dakar ñëw ba ci yow ñi nga xam ne ñoo ko toogal ci dëkk bii di Touba suñu ñëw siyaar bi sëñ Touba bii nga xam ne mooy sa bisu ci màggal gi nee di wax ni rek nee na mu la dénte woon boppam bi mu ñëwee bu fekk la ca tool ya nee na loolu lay fajliwaat tey jii bi nga fekkee ci keppal sëñ Saliou gii nee na ci sa njaboot la bokk te nee na gis na cofeel gi ngeen am ci moom nee na di ko nemmeeku saa su ne nee na di xool wér gi yaramam nee na gis na tamit sa njaboot yi bokk ci yow nee na cofeel gi am ci moom nee na moo tax muy feddali ak taalibeem di dénkaat boppam nee di sàkku ñaan tamit saa su ne sa jëmm ji tat ji nee di ñaan yàlla suñu borom mu defal la wér gu yaram nee na bàyyi leen sunu kanam mu yàgg yàgg mbàkke mbàkke sëriñ Saliou di ñaan yàlla nag ci màggal gi nga xam ne moom la ñuy si nee na mu doon màggal yi gën ci màggal yi nee te saa suñ jógee ci màggal gii nee na mu yóbbaale mbas mi ñuy wax ci réew mi ndax nee na gis nañ ni. dañ koy dëgmal. bi ñuy dëgmal màggal gi. coow li coow li bari woon na lool mbàkk. waaye. nee waaye. yàlla def na. waaye yàlla suñu borom de def na. suñu ragaloon doon ragal ci mbas mi lépp. wàññeeku na bu na wàññeeku na bu baax mbàkk bal. ba mel ni ba mel ni sax dafa mel ni mbas mi sax déggatuñ fenn mbàkk. ba nee bu dee am na lu tuuti li ci des. nee na yàlla na ko màggal bi yóbbaale ci bàkki Sëñ Tuubaa sama nee na loolu rek la waroon a wax ci lu gàtt di la ko siyaare Mbàkke nee la ca des nee su dellu see ci beneen jamono bu gën a yaatu lii nee nañ ko defe woon rek ban la fekkee ca tool ya nee na mën a wéet ak yow waxtaan yow saafante yow ndax nee na waajuram nga léppam nga sëriñam nga nee na jërëjëf Mbàkke Balla ci sëñ bi de nee na li a tontu nee na sa biir wax li muy fekk li mooy cërub doom ci yow. nee loolu li muy fekk li mooy cërub doom. moom la la ci xolam. nee moom la la dencal ci biiru xolam. nee ginnaaw ba nga jógee bustaan tamit nee ginnaaw bi nga jógee bustaan itam nee ginnaaw bi nga jógee bustaan ba jàppoon fu dem ci daara yi fu yaatu yëgal la waaye nee na loolu it mi ngi ko jàpp ba tey nee na bu ñu suñ borom weesulee màggal geeg jàmm fu mu fi nekk rek dina la ko yëg nee na xanaa bu la ak feet mayoo lay toppatoo café bala ngaa dem nga xam ne ku ne nga faa sedd maslaa mm-hmm. nee na kon mën na la koo lebal nga fay si ko nee na ñu maase ñun ñëpp tàllal te ku nekk fasal sa morom bismillah